murtajan minnatun lana jariun seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan te di ñu déglu ci sunu émission bi ñu tuddee madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci sunu sit bi ñuy wax 24 actu tey ñu dellusiwaat di nuyu mbokki jullit yëpp mbokki taalib yëpp di leen baalu àq te di leen baal àq di leen ñaanal di sakku seen ñaan amaan mbég te dikkaat ci benn tomb bu itteel boo xamante ni ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel rawatina ab jullit yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ne nit ki su fekkee ne faatu na jëfam yépp day dagg ba mu des ñaari jëf walla ñetti jëf mooy ku mu jàngaloon muy jàngalewaat wala teen bu mu bëtoon nit ñi di ca naan wala garab gu mu jëmbaloon tàndarma gu mu ñu di ca euh, lekk walla ñuy jariñu ca ca matt ma wala doom joo xamante ni walla du saalixin doom ju baax ju lay ñaanal yooyu jëf daal boo duggee ci bàmmeel moom sa yépp ñooy arrêté ba mu des yooyu ak yu mel noonu moo tax tey ñu bëgg waxtaane fu ci jullit bi ni mu amee solo li nga xamee ne ginnaaw suñu borom xamal nañu yonent bi xamal nañu jëf yépp day dagg waaye am na ci jëf yu dul dagg maanaam robinet bi yenn saa yi am na ci robinet yoo xam day tëj waaye robinet boo xam day xelli rek di dem di dem li nga xam ne suñu borom li wax ci saar yi nga xam ne moo di inna axtaynaka al kawsar fa salli li rabbika kawsar ak géej la goo xam ne ak dex la goo xam ne ku nekk àjjana waaye ñi ko tax a jóg nag mooy ñi nga xam ne fa salli li rabbika ñi nga julli di ko julli ngir jëmmi boromam kon ku bëgg naan ci dex googu da ngay julli ci sunu borom julli mooy ngay aw ci ndigali sunu borom yi nga xam ne santaane koor baax na naan natt asaka baax na yépp baax na waaye dafa am yoo xamante ni ay dagg la yoo xamante ni nit ki daf ko war di ko def ci jullitam yàlla mi la may alal may la wërsëg may la kii xañ ko ñu bari daf laa séddaleloo daf laa defloo ci yoonu yàlla xam ngeen ne jihaat ci yoonu yàlla saxaba yi nga xam ne dañ doon xare ak yonante bi doon waajal léegi xare Tabuk yonante bi salaa salaam bi mu Omar woo Ousmane woo saxaba yépp ne leen indi leen lu nu waajale xare bi Seydina Aboubacar Omar moo njëkk dégg loolu bi mu ko déggee mu ne tey de Aboubacar de lu mu mos a woote ci yàlla mu raw ma waaye tey jii de góob mu raw ma dem ca këram ba mu demee ca këram mu jël lépp lu fa nekkoon ci alal xaaj alal ji ñaari xaaj benn ba mu yóbbu ko jox ko yonente bi benn bi mu téye ko nees tuuti Aboubacar moom it dikk ak njëgg yu bare ak alal ju bare bare bi mu dikkee yonente bi salaa salaam laaj leen ne leen Omar lan nga bàyyi Omar ne ko bàyyi naa fa lu toll nii lii ma indi Seydina Aboubacar mu ne ko Aboubacar lan nga bàyyi sa kër ne ko yàlla ak ab yonentam laa fa bàyyi yonent bi salaa salaam daal di ne ko nii seen wax yi demee fa yàlla Omar daal di siggi xool Aboubacar ne ko bàyyi uh, ma déggee woote bi dama ne lu ma mës a woote ci yàlla Aboubacar. jël ko man ma toog waaye xam naa ne yow daal yaa ma ëpp ëpp cër ci yàlla yaa ma gën a jege yàlla yaa ma gën a bëgg yonante bi kon jëlal bis ni ko tey rawanteetuma ak xam naa ne yaa ma jiitu ci yàlla loolu ab xol moo koy def xol bu defaru mooy def bu ngeen rawante ci yàlla ñu raw la alal bi gis ñaar amandoo ko wala kii warut lu bari sax waaye ak tabe day nekk ci moom ak di def ci yàlla am ñoo xamante ni ñoom mënunoo def ci yàlla ndax li tax mënunoo def ci yàlla mooy seen xol moo gàntu ëllëg yoomal xiyaam nag am na taxawaay bu yàgg bu fa am boo xamante ni borom xam-xam ne juróom fukki at la juróom fukki junni at ne mi ngi ne xam si na sàmmatin muy at yu bari yoo xamante ne danañ ko taxaw taxawaay boobu méttiwaay ba jéggi na dañu ku nekk da ngay mujj nee neen laab ji nga xam ne moom lan la laab maanaam sa bakkaar lu sa bàkkaar gën a bari noonu lay def ci yow am na ñoo xam seen bàkkaar day mel ni daal lay war a yoo xam moom leen sol am ñoo xamante ni day dikk ci seen wóom yi am ñoo xam ne day dikk ba ci seen euh, ndigg li am ñoo xam ne day dikk ba ci seen dënd bi am ñoo xam ne day dikk ba ci seen gémmiñ gi ngalaab ko am ñoo xam seen bàkkaar day mujj ngalaab leen ñoom day mujj ñoom féete leen kaw loolu lu la ci mën a génn ëllëg yamal xiyaam bokk na ci wax fu mooy nga tabax sa kër gu rafet a rafet goo xamante ni noobul la bu rafet nga mën koo lee weer wu nekk nga mën caa génne lu mu néew ne deux millions million wala yaa xam trois cent mille wala dara nga ne man daal kër kër gii koy jël. moom ngay ah, amal njariñ yow ci ëllëg yu ma koy dana la amal njariñ nga ne kër gi kër lu ci génne sëñ daara yi laa ko jox. ñiy jàngale alxuraan daal seen daara ji ma gis daara ji nga xam ne bu nawet jotee amuñu mbaar amuñu dara xale yi amuñu lu lekk dañuy yalwaane jël naa lépp ma jox leen ko lu ci génne ñu def ko ci yoonu yàlla wala nga ne man kat sama lii ma yor mu di sama alal lu ci génnee dinañ ma ko xaajal bitig bi ma am muy magasin bi nan ma ko xaajal ñetti xaaj benn bi nan moo ko joxal imaam yi jiite bi ci des nan moo ko joxal noddukat yi bi ci des nan moo ko yóbbul ca hôpital ba pharmacie ba ñu ciy jënd ay ordonnance walla jëf ñu baax jooju wala jëf ñu baax jooju nga xam ne dalay fekki yonent bi salaa salaam ne la bu la fekkoon ñuy wal buftu bi sax na bu la fekkee nga jëmbatu tàmbar mën na nga ko jëmbat la tax mu wax loolu mooy tàndarma dafa mën a yàgg tàndarma ay ñaari téeméeri at wala nangami am ku dikk witt ca ñu mem mem ma wala mu lekk ca doom ba wala mu naan toog ca kër ga wala mu def ca dara loolu lépp da lay fekk day mel ni robinet nekk mi ngi xel di ñëw ci sa bàmmeel li tax yonent bi mujjee doom doom ñi xamu doom ji ëllëg dana tal dana la tal wala dana la boole itte adduna yi ko songu ba di la ñaanal am na ñoo xam di ngeen dégg at ba at la ñuy dégg dañuy wàcceel paaji kaamil am na ñoo xam at ba at ngay dégg xam nga ne sa bàyyi nga toog ba at ba at nga soog a toog nga ne paa bi daal tey lañ koy wàcceel kaamil wala nañ ko defal ñeent fukki yaxlaas wala nangam ma ne jooju doom buur jot yooyu ak ñàkk jot yooyu ak amaana est ce que mën na ko sax ñam yi jël ñu koy jàng alxuraan bu fekkee jàngaloo woon bu boobaa lu mu farlu farlu rek la gënoon a baax mooy nga dawal ci sa bàmmeel dara amoon nga waxtu bi des na ci ñun suñu waxtu des na suñu alal des na nan jéem a seet lu mu liggéeyal yàlla ak lu mu liggéey jëmale ci suñu bàmmeel bàmmeel tëraay ba yàgg na mettit wa yàgg na kon lu waaye am na ko dawal ci sa bàmmeel yow mi am nga oto boo xamante ne oto yoo jënd ñu ne oto yi kat lu ci génn na mu ko xaajal ñetti xaaj ñi nga xam ne dañoo toll ci jàng nga xam njàngam adduna la wala njàngam bi nga ne nan leen ci wutal ay fourniture nan leen ci wutal ay téere yu ñuy jànge nan leen ciy fayal xale góor yi nekk ci koñ bi nga xam ne jigéen ñi amul lu takk jabar nga ne xale yooyu kat nañ ci dindi ak mu nekk ñu takkal ci ñenn ñu jox leen ñu takk ci jabar ndax ñu mën a bàyyi loola di ci dàq lu bari di nga tax mooy yàlla di doon am ak gise ba ñuy gise ak yooyu yëpp da nga mën a dakk barrage boobu wala nga ne ah xale yi kat gis naa ne ñu ci bare bare ñu ngi topp ci gaal gi di dem ci kii nangam te leen wutal fii liggéey léegi oto yooyu ak loolu yi génn ci kii bi nan def lu ci génn rek ñu xaaj ko xale yi ñu wutal leen ay départ ñu mën a commerce wala ñu mën a liggéey ko defee xale boobu mu ne neex loolu loolu jàpp naa ne ay jiw yoo xamante ni xoolal ko tëdd ca hôpital sëñ bi nga xam ne ordonnance douze mille la ko fa bàyyi wala ordonnance six mille mënut fexe ba am ordonnance yooyu nga dem ne tey ka ci hôpital bi laay jëm hôpital bi laay seet ba xam ñan ñoo fi am ordonnance yoo xamante ni ñu nu fayal kut la wala ñan lañ fi entré ñan ñoo fi ne nga fay leen seen yooyu jëf yooyu lay jëf yoo xam du dagg mukk mukk mukk kon nit ki li nga xam ne mooy ay jëfam na ci góor góorgóorlu di ci dawal ci bàmmeel bàmmeel dafa yàgg te doomu aadama yi liy dawale ko am réew bokk na ci wax foofu xoolal tey jàkk ji nga ne jàkk ji kat tey sama magasin yi walla nga ne sama tool bi ma bay tool bi daal lu ci génn damaa bëgg di ko def ci nu mu tuddati ci jàkk ji ndax gis naa ne jàkk ji àggagul gis naa ne jàkka ji ba nga ko tàmbalee ba léegi eggul gis naa ne rajo yi baaxul gis naa ne courant bi duñ koy fayee métti na yenn saa yi ñu coupé courant kon naa def weer wu nekk ma gàddu facture jàkka ji yonent bi salaa salaam nee na képp koo xam tabax nga jàkka mu toll ni kaaba la tabaxal ay ci àjjana tabax boo xam yonent yàlla suñu borom mooy rëdd plan bi malaaka yi ñooy entrepreneur yi yonent yi ñooy ñi nga xam ne ñooy architecte yi jàpp naa ne yooyu kër ku ko am rek sa àjjana neex na sa ëllëg sa yomal day am te loolu du caagin ne tabax jàkk xam nga bu suñu borom waxee ne kaafu përintir kaaf bu waaye boo amee sa ñaar fukk nga ci jàkka ji boo amee sa nangam nga dugal ci jàkka ji yooyu ay jëf la yoo xamante ni du dagg xoolal tey ki ñu doon nettali nga xam ne dafa wax ne dafa feebar benn jigéen la boo xam ne feebaru kaas na moo ko dal feebar bu métti. nee na feebar boobu mu jël ak benn mbindaan mbindaan bi mu jël nee yàlla dogal na mbindaan bi ñu ñëwee ci kër gi dafa seetlu ni suy liggéey daal ñaari minit ñett mu dem ca suba nekk fa yàgg fa ñaari minit ñett mu dem ba mu jum woo ko laaj dina ko waaye dama gis ne da ngay dugg ci wàllu lu bari dina ma kër yi lan moo tax nga ciy yàgg noonu ak lan moo tax na ko mën de dafa fekk ne samay mbokk ñu bari dundatul fekk ne man rek maa nekk. bi ma nekkee tamit ma am doom bi ma amee doom ak léegi ma dëggul fukki fan ak juróom yàlla dogal sama doom ma bàyyi ko fa bi ma déggee ne da liggéey moo tax ma ne naa ñëw liggéey ndax ma am lu may jox sama doom nee na mu ne ko ah yow de fii nga toll gëm naa ne mënul liggéey kon léegi ni ñuy def dama lay fexeel jëlal li nga xam ne ñaata ñaari at nii yoo xamante ni lii ma la jox di nga mën a dem nàmpale sa doom boo ko nàmpale mu am at. ñaari at yooyu su jeexee nga ñëw ma jël la sama numéro téléphone yi ndaw si nee na ma jël loolu mu ne ko da delloo seen réew daggal ko bii avion ne ko delloo boo delloo nga téye sa doom nàmpal ko ñaari at boo ko nàmpalee su noppee ñu ñëwaat nee bi mu demee moom mu continué waat di dem ci docteur yi di faj nee na bi mu àggee ci docteur yi bi mu demee docteur yi xool feebar bi ne ko ñun feebar bi ñu jàll ci beneen docteur yeneen yi ñu xool xool. xool këyitam xool yëpp ne ko ñu daal benn feebar gisatuñu nga xam ne la tax feebaram boobu teggeeku mooy loolu mu def yàlla ne day leen saraxe ndax ma teggi leen musiba yi leen dal day leen saraxe rawatina jigéen yi nee na leen gis naa leen sawar yonent bi nee gis naa ne sawar yéen a ko ëpp ñu ne ko mu ne leen kon dee leen saraxe yonent bi sallallahu alayhi dee leen baril bu ngeen di saraxe ndax sawara yi yéen a ko ëpp loolu ku nekk xam na ne la ak bëgg lu baax xoolal tey ki nga xam ne amul lu mu lekk amul lu mu naan xoolal euh, kilifa bi nga xam ne dafa mos a toog ba ci yàgg muy lekk moom dongoom dongo bi ubbi bool bi mu ubbee ñu tiim ko muy bëgg muy lekk mu xool bool bi mu gis ne bool bu taaru la boo xamante ni lekk ga ca nekk bu xéewale la mu sëgg yëkk di jooy moom sëriñ bi dongo bi laaj na sëriñ bi looy jooy mu ne ko dara mu ne ko ah am na looy jooy mu na ko damaa xool tey bool bi nit di nekk ci xiiwal ci teraanga ci ay ginaar wala ay lekk yu am solo maa yow rek ñu a lekk bool te gis naa ne xeetu yonent bi sallallahu alayhi am na ñoom dékki wuñu naa ne suba du naa ne tamit du nu loolu moo ma jooyloo Abu toog na benn jamono mu war a toog ndogu gis ndogu li bakkane lool mu jékki-jékki dem ci Seydina Amsa dem ci Abbas dem ci benn saxaaba boo xam ne bi muy faatu biñ koy denc biñ koy sàng bu nu sàngee tànk yi du jot bopp bi bu nu sàngee bopp bi du jot tànk yi mu ne te saxaaba boobu xam naa ne gënuma ko abbas gënuma ko amsatu gënuma ko te mbokk yonente bi damaa defe ne yi ci àdduna daal ne dëng daal di ne suuf naa mbokk yi nanu góorgóorluwaat ñu jéem a liggéey suñu bàmmeel dawal dara ci suñu bàmmeel te def waxtu waqfu day doon loo xam ne du fi sax la xam ngeen ne ab teen dina am daanaka téeméeri at tàndarma mën naa am lu ëpp loolu hôpital bi nga tabaxoon ni ciy faju kaamin bi nga bindoon ci daara ji ku ca jàng ki nga fajoon mu faj lépp la sëy bi nga xam ne yaa ko takkaloon xale bu góor bi mu man caa jaamu yàlla doom ju ci juddoo xoolal yooyu doom doom jooja di la ñaanal doomam jeneen dina la ñaanal yu baax yooyu nga xam ne moo am xoolal tey ku mel ne suñu Ahmadou Badi mi nga xam ne hôpital bi mu tawa xoolal xale yi ñu indi ngir di leen jàngal xoolal ndox mi nga xam ne def na ko ngir di ci jaamu yàlla yonente bi salaahu salaam nee na Seydina bi mu jëndee teen na ko Ousmane mënatut a def lu ko ko lu ko bàkkaar fekk Ousmane yàlla na ko ci àjjana Ousmane mënatut a def lu naqar te booba am ndox moom jëndoon kon mbokk yi ñu ngi taxawlu fii dinañ ci wax fu gën naa yaatu loolu ak nit ñi dafa mel ni nit ñi nag bu ko bàyyiwul xel. ab géwal na ma yàlla baal bu mu woon tuddee noonu sax waaye nit taggaate kat ñëw tagg la rek nga dindi xaalis jox ko keneen dikk sar xolle nga dikk jox ko keneen dikk ne la say maam nangam say maam la <laughs> say maam lan nga ci def bu la li ma doon sa junniy maam yi tamit lan la lan nga ci def ban effort nga def pour am maam yooyu benn effort li nga def pour am ñu man laa woy mooy li nga defal sa bopp ak li nga jëfal sa bopp nit ki dafa war di seet li mu war waaye tagg la ciy maam tagg la ciy bàyyi loolu du mbir mi mbir mi mi ngi ci sa jikko ak yi nga jëfal yàlla suñ tubaa nag daana wax ne ñetti rëdd yi moo am fii la nekkoon lii la fi def fii lañ ko def yooyu nag ñu jar bàyyi xel la ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ak ñëpp seet na moo nekkoon ci caméraman bi ki nga xam ne moo ko muy Soxna Awa ki nga xam ne moo doon monté mooy ki nga sant ñëpp di gërëm ñëpp leen murtajan minnatun lana jariun